waaw ñu ngi sant bu baax madame la ministre ci taxawaay bi nga xamante ne am na ko rendre nañu une benn visite de courtoisie à la chambre de commerce ndax yàlla dafa def li muy def ak ñu lu ñuy def daf ci bari lu bari lu bokk jël naa ci léegi rek benn exemple euh, encadré nañ ñoom ay opérateurs sénégalais yoo xamante ne mën na presque une dizaine ñun ñu def la même chose délégation bi ñu demee ñu ngi ko yoo gis ak Karachi mais heureusement chef de délégation boobu ak ñun suñu délégation am nañ benn synergie boo xamante ne bu demee woon neneen mun na yàqal Sénégal mais amu fa dañu boole délégation mu nekk benn ñu ànd ko ñoom sax ñu def honneur jox ñu ko président chambre de commerce dirigé ko loolu dafay wane rek ne responsable yi nekk fii ay kilifa lañu ay mat lañu ñun nag suñu devoir en tant que opérateur économique suñu devoir en tant que institution mooy jàppale am na lu ñu jafe woon déjà lu lu bari sax ndax fi ñu amee fi ñu indi Sénégal ba mën a am surface Euh, deux euh, deux cent carré carrés ci Paris ñoom ñëw ñu def nañ seen taxawaay ba am surface su mille cent mètres carré ca ca Qatar ca Doha loolu du lu du lu du yomb dañ ko war a saluer ba pare nag fexe nag ñu réussir ko ndax boo amee euh, surface boobu ba pare te ñu war a leen demuñu ñu war a exposé exposé wuñu loolu dafay wone rek ne ñoom liggéey nañu mais ñun fekk si leen ci liggéey mais loolu du ci des en reste lépp lu chambre de commerce mën dina ko def lépp di l'union des chambres de commerce mën dina ko def mes collègues de l'intérieur ñu ngi leen di informer déjà sur Doha et que je pense que la mais dans la mais ak autorités yi ñu jàppale su ko defante ñu mën a réussir quand même Doha comme ni ñu ni réussir économie yeneen mission yi nga xamante ne wax naa ko